à l'incompétence, ils associent le manque de sérieux. Réo kenn du ko caaxaane munoo xëy ne lii lay def bu ngeen ma falee programme kooku de wane ni xamoo foo Et leur objectif, c'est en réalité de désintégrer le Sénégal. tas Sénégal ay morceaux dégg naa tey sax léegi du toxal capital yóbbu ko feneen mu le capital da rek il commence à devenir un danger pour le pays et c'est aux populations de régler ça le dimanche 24 en votant pour la sérénité, en votant pour l'expérience, en votant pour la poursuite du plan Sénégal émergent. xam pour une campagne électorale nous ngay nous mais sérieux da ngay wax askan wi lu taxaw da ngay wax askan wi lu leer bàyyi naxaate yi surtout bu nekkee yàq rek moo la tax a mobilisation bi rafet je salue la jeunesse de Tambacounda pour son engagement et sa détermination oui je veux être le président de l'emploi des jeunes avec le plan Sénégal émergent, c'est un million d'emplois, un million d'emplois qui seront réalisés durant ce quinquennat. li ma bëgg mooy ngeen qui ma ci liggéey yi ma la ci loolu rek laa bëgg wax dégg naa koy wax cinq millions dégg naa koy wax trois millions déedéet réew mu nekk dafa am lu mu àttan réew mu nekk dafa am lu fa war a lu mu war a boo ko xamulee nag da wax loo xam bi boroom xam-xam yi bu ñu ko déggee ay ree da jàpp si li bi ñu xamante le pays a besoin de Le pays a besoin de fils de c a m n o d g e Le président vous faites confiance. Alors vous avez toute ma confiance, mon amitié et ma sympathie. Merci.